mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal eh, jamono yële nu génn Sénégal àddoon na ci xibaar boo xam ne dafa jëmoon ci prestation Wally Ballago Seck ca inauguration stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio dëppoon ak 22 février ndax ñu ngi doon samp di bëgg xam réellement lan moo waral Wally Seck deful prestation ba mu ñibbi ndax dafa gedd wala geddul qu'est-ce qui s'est réellement passé yàllaate mu mel ni kaawam def nañ réaction te leeral yi ñu indi nu fàttali nii wax dëgg fa la Wally Ballago Seck honoré na engagement par rapport ak cérémonie bi la mu sàmmonte woon ak ñoom ci kàddoom ak ci participation lépp matal na ko teewoon na yéeg na sur scène mais malheureusement li mu bëggoon par rapport ak li mu waroon joué xëy na ñële ci seen niveau ci seen wàllu mbirum technique delloo wuñu ko ko waaye nag teewul nee nañ wàcc na wër stade bi image yi sax euh, wane nañ ko saafonteeg ak ay soppeem daa dee dem ñibbi kon mu leer. ñoom li ñu bëgg a euh, xamle mooy que ni Wally Seck geddul benn yoon la waroon ci bés bi matal na ko teew na waaye nag la ci gën a am ci wàllu coow mooy dañu jiiñ kaawu maanaam ñi nga xamante ni ñoo amee woon sono bi sabotage sono bi kaka amee woon di jaganduur waaye mel na ni waa kër yi ñoom itamit àddu nañ indi ay leeral bu ñu euh, bu ñu bu bu ñu sukkandikoo ci ay leeral waa PNG nga xamante ni ñoom itamit dañoo bokkoon ci wàllu animation euh, bés bi ci wàllu sono yi ndax ñoom nee nañ njaganduur première partition la waroon matal diggante ma maanaam programme bi ci la mu sàmmante woon ak ñu doon organiser deuxième partie bi Turquie ñoom ñoo ko amee woon kon mu leer Ndiaga Ndour amul benn yéene maanaam pour saboter mbirum waali Seck kon coow loolu nit ñi bëgg a dekkilaat te mu xewoon fi diggante Youssou nduur ak waajuram yal na ko yàlla yërëm euh, fa mu nekk mel na ni moom moo nar a dikkaat ba ñu bëri indi nañ ci seen i gis-gis. ñii danoo bañ waali euh, bëggunu mu avancé euh, ñii tamit jàpp ni mbir yi sabotage la coow li ne kur ku ci nekk samp sa position ku ci nekk euh, maanaam indi maanaam sa part de vérité par rapport à la situation mu mel ni tey nag société bi nga xamante ne ni moom moo amee woon sonorisation bi ca waxtu wi nga xamante ni Wally Seck waroon na muy Audiopole ñoom indi nañ ay leeral ci benn communiqué goo xam ne jàllale nañ ko ci ëtt yéenekaay ndax ñoom nee nañu Euh, technicien bi nga xamante ni moom moo euh, féetewoo woon ci société Audiopole bi te amee woon console maanaam ci wàllu régie bi dafa def li tubaab di wax inversion dans la diffusion de deux bandes maanaam ci son yi maanaam à la place de euh, son Wally Seck mu mel ni ay son faali Ipupa lañ fa doon animé mu di njuumte goo xamante nii ñoom mel na ni nangu nañ ko kon ndax euh, finalement waa Wally Seck amul raison ndax tooñuñu ko lan moo war a tax societé bi euh, tamit xam na ni bés bi nii la waroon tëddee artistes yi ku ci nekk sason daf ko war a joué euh, ñoom ñu doxalee noonu waaye lu ci mënti am ñoom nee nañ amuñoon benn intention maanaam saboté amuñoon benn intention maanaam indi naka su dul noonu kon mbokk yi mu mel ni version yaa ngi noonu ginnaaw Wally Seck la ñu leeralal ci seen artiste encore une fois que du kuy gedd nekkul kuy yàq bés la ko waroon def na ko waaye tamit ca kaawu Ndiaga ñoom nee nañ seen loxo takku ci ndax ñoom première partie bi lañ amee woon deuxième partie bi Turquie ñoom ñoo ko waroon maanaam assuré Turquie tamit indi nañ seeni leeral indi maanaam njumte goo xamante ni amee na ci ñoom ci seen wàll maanaam réglage technique mu di inversion moom moo amoon ci wàllu diffusion bi waaye lu ci munti am euh, finalement qui à raison moom mooy laaj bi nga xamante ni euh, moom la ñuy samp qui à raison dans tout ça ndax part de vérité kenn ku ci nekk maanaam yaa ngi wax te maanaam kenn nangul assumer tort waaye lu ci munti am mbokk yi ci ay leeralal euh, comme nanu ko waxee woon ca tàmbali ba Wally Seck ndax dafa budde wala buddewul dafa gedd wala geddul kon mu leer ni Wally Seck geddul ni mu demee mooy niñ leen ko waxee mooy que ni c'est au niveau maanaam de technicien kon Faramareen bi mel na ni la ko waroon def na ko débat nag jib na ci kenn ku ci ne ak sa gis-gis ak la nga xamante ni moom moo am ci suuf loolu nag du loo xamante ni intéressé noonu waaye li gën a am solo pour revenir aat ci fee yi nii la demee maintenant nag yéen askan wi nag laaj gu ñuy samp rek lu mel nii nag ndax maanaam yenn na maana wala yenuwul maana finalement kan moo am dëgg ci ñoom